Est-ce xam ngeen ni ce que vous avez réalisé est plus fort pour l'Afrique que la libération de Nelson Mandela nii la ma ko waxee kon ñun dañu war a xam li ñu yor ñii nga xam ne rek seen gémmiñ ñu ngi nàcc te duñu wax jàmm bu leen leen déglu bu leen leen topp xam ngeen fan la leen président Diomaye soxlee xam ngeen fan laa leen soxlee mooy une formidable mobilisation citoyenne ba doole googu ñu amoon ba mun a jàkkaarloog état parce que toon nañu ba jàkkaarloog état parce que li la doon bañ projet bi egsi fii cette formidable énergie qui a porté le projet qui a protégé les porteurs du projet il faut désormais qu'on la transforme en une énergie de construction de notre développement c'est ça que nous attendons de vous bu leen topp seen i wax ndax ñun xam nañ ni àttanuñu ñoom opposition keroog bu ñu demee commissariat dégg naa policiers yi grenade bi benn grenade la ñu jël xaaj ko ñeent jël ci benn sànni rek ñoom ñëpp a soj kon àttanuñu ko bu leen <laughs> gars yi gars yi jàmbaar ngeen de kon soxla nañ seen énergie pour la transformation de ce pays ñëpp mënuñoo nekk du ñëpp a mën a xëy rek c'est-à-dire fonction publique Sénégal ba mu daj boo moytul ñi fi nekk ñoo leen ëpp kon ñëpp mënuñoo xëy nekk directeur général ñëpp mënuñoo xëy nekk ministre teew de nee nañu wala seen famille sax dañ leen di xas ne leen yéen a fi newoon di xeex te fàtte nañ leen déedéet déedéet ba ñuy jóg di xeexi kenn ci ñun amuloon yaqin ni dinañu jël nguur dinañ jël pouvoir bi kenn kon dañoo xeexoon ngir des principes des valeurs te ñun ñooy àndoon xeex ngir des principes et des valeurs tey bu ñu yàlla joxee réew mi ñun ñooy ànd liggéey liggéeyal réew mi waaye kenn ku nekk ak fi nga ko mën a liggéeyee kenn ku nekk ak fi nga ko mën a liggéeyee te it la tax sénégalais jéppi ñeneen ñi war nañu moytu mu dal ñu kon saa suñuy tànn dinañu seet ndax charte yi mat na parce que bëgg nañ kenn ku ne suñ la dénkee nga bañ ñoo gàcceel ndax moo leen ko de kuñ fi dénk mënoo dañ lay wàcce waaye kuñ fi dénk nga jël kaso nga jëm kon ku ñuy dénk rek bëgg nañ mu leer ni lañ lay dénk mën nga ko attan nga ko te am nga njub gi pour yor ko yorin bu gën a rafet ñi ñuy dénkit dinañu soxla ay collaborateur mais ci ñi ci ñu fi nekk lañu koy jëriñee waaye li ëpp solo mooy projet de développement bi dafa am un volet citoyen sànq bi may ñëw dama waxtaan ak président Diomaye mu ne ma fàttalil ma gars yi projet citoyen bi def nañu une première édition nettoyée ñëpp génn nañu macha allah waaye dañ naan Sénégal départ la amul arrivé. weer wi di ñëw bu doon fukk génnoon bii paa dañoo bëgg junni génn il faut ñu inscrire suñu action dans la constance et dans la durée ak nu mu yàgg yàgg yàgg gis naa ay image yoo xam ne xam naa ni ñu ngi fii ci biir ñi doon dugg ci biir caniveau yi di génne pneu yi loolu amul lu ko mën a lu ko mën a fay ci projet bi bu leen jàpp ni fii am na kuy nguuru de ma ma wax leen ni président Bassirou Diomaye bu nelawee par bës ñetti waxtu la nelaw ci bës bi man saa su ma xëyee yàgg naa leen wax ni politique amul lu ma ciy xaar salaire sax bëgguma ko ci lu ma musa am ci salaire delloo naa ko askan wi te noonu laa koy defaate nii soxlawuñ ci dara lay defar réew mi moo ñu intéressé kon bu ñu ma duggee ci suñu oto motaar yi jiitu ñaari oto ne ci benn oto ne ci kanam benn ne ci man su may xool ci vitrine bi maa ngi xool senegale yi maa ngi naan lan laay layoog ñii ci kanamu yàlla nag waxuma fii lan laay layoog ñii kon nañu xam ni kenn ku ne ci ñun am na lu ne ci moom loo xam ne dañ koo donn wala dañu cee mooñaale ci niñ doon doxalee fii nañu fexe ba loolu ñu génne ko ci ñun nañ ko génne ci ñun nañu dellu si la ñu nekkoon bi ñuy ne opposition bi nit ñi di génn di xeex amul kenn ku ñu jox post wala dërëm wala ñu digla waaye dañoo gëmoon ni lii mooy soppi Sénégal est-ce que dinañ ñëw tey ba ñu dénk ñu nit ñi di teggi seen tànk parce que joxuñu ma lii wala seetsi wuñ ma wala woowuñu ma wala wala wala est-ce que loolu di ngeen ko def yéen kon l'action citoyenne est le fondement et la base de la réussite de notre projet moo tax son excellence président Diomaye daf ma delloo dafa nangu ci madame nangu ko sax dafa jëlee ci madame le ministre de la jeunesse lii nga xam ne mooy le service civique national et le volontariat daan ma koy delloo si man primature parce que man ak yéen xam ngeen ni terrain bi la man ak yéen terrain bi la dinañ ko organiser waat ubbi ko yéen ñëpp bindu leen ci soyez des volontaires de votre patrie soyez votre des volontaires de votre propre développement ñoo ngi ko doon def démb ak barki démb te amuñu benn moyen def nañ fi vacance agricole patriotiques def nañ fi ay don de sang def nañ fi ay euh, activités di nettoyer cimetières yeeg écoles yi bii paa nag dañ ci lënkaloog armée nationale lënkaloo ceeg les entreprises ñu génne seen matériel lënkaloo ceeg budget bi nga xam ne état bi dina ci génne gis ngeen vacances yi man ak yéen ak président joomaay ak tous les ministres dinañu bay dinañu bay de dinañu reboiser dinañu reboiser dinañu dem defar ay école tabax ci ay salle de classe tabax ci ay toilettes dinañu def ay action citoyenne yu mucc ay fii ci vacances yi ñu jëm loolu mooy wane ndax liñ doon wax ñun la don de sang de soi pour la patrie est-ce que dëgg la si ñun am déet kon mbokk yi mun naa toog di waxtaan ba fajar waaye soxla nañ leen ci ngeen dooleel ñu ci combat yi ñu jëm ñëpp a ngi wax wàjji dund est-ce que xam ngeen li tax dund bi jafe man nee naa leen mënu leen ma mënuñu maa vaar parce que sama waxu démb mooy sama waxu tey yàgg naa leen wax ni fii rek tabaxuñu économie lu dul jël xaalisu réew mi dem lépp pour def di du saupoudrage